convention bu bawal daal nañu nag delloo njukkal lu takku ci ay ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci région bu Diourbel ci lu tukkee ci jongante baccalauréat yi nu génn édition bi mel nag ñu ràññee ci lool kilifa diine yu bari ak i tamit kilifa yi ngànk wàlluk administration nekk ci région bu Diourbel Serigne Mamor Mbacké jiite université Cheikh Ahmadou Bamba moom lanu ñu tuddee bés bi mel. ak euh, li ñu gis moo daal ñi amul alluwa euh, ci te nekkuñ ci doon bi ñu nekk euh, dafa tax ñu ñu jàpp ne jaadu na ñu ñu def lii pour xale yi bëgg am njàng gën ko bëgg góorgóorlu ji parce que yaakaar naa ne yéen ñëpp de xëy sax yéen sax du ngeen ko mën a xam ndax at mais mag ñi xam nañu ne Bawol Njàmbur Saalum partout il y avait des gens qu'on pourrait appeler aujourd'hui lu ëpp juróom benn téeméer ci ay ndongo daal di nañu leen di delloo njukkal ci kanamu seeni xarit ak i tamit seeni wayjur foofule ca boulevard bu Ndoyeen. tey neen na dañu wax ne ñu dañu waxoon ne ñu ngi amoon euh, ak juróom bi ñu ne ñu mën na 600 personnes waaye yàlla dafa defoon nag ñu. suraale woon lu ëpp loolu ndax dana woon on sait jamais mun ñu ñëw am ñu jox am ñu jox am ñu frustré wu ba yaakaar naa ne ñooñu ñëpp ñu wax ne six ñëw nañu fi loolu ñu war am dinañ ko am parce que noonu lañ ko noonu noonu lañ leen ko fàggule woon mu rafetlu lool taxawaay bi nga xam ne convention du bool amal nañu ko Moustapha Xuma tukkee ko ci centre Serigne bu Bousso dal dinay rafetlu initiative bi nu mel waaw loolu day dañ ci sant bu baax pare di ci am contentement bu baax baax ndax lii dafa am solo lool ndax day bokk ci nga xam ne day motiver élèves yi pour que ñu dem jàngi xam ni tamit maanaam bac nekkul ne da ngay dem rek ne dama war dem pour wuti bac maam pour réussir rek maam de manière mais nit ki dafa war a am objectif dama war a am mention pour ñu mentionné ko pour bokk nañu kii il fait partie des meilleurs jàpp naa loolu dafa nekk lu am solo lool tey itam day sant bu baax waa convention du Baol ndaxte lii jàpp naa lii lu bees la te kon danañ dem ba xam ne kon Bawol kat am na ñoo xam ni ëllëg ci biir incha allah taala danañ dem ba bokk ci nga xam dañuy bokk ci leader de ce pays la wàllum njàng meeg njàngale mi bokk ci pàcc yi nga xam ne convention du Bawol jox nañu ko bopp lool loolee tax ba du ñu yem ci audition bu njëkk bi képp li nu mel daanu ko wëyal loole yi ñëw fegoo ci taxawaay gi nga xam ne daanu ko taxawi jagleel ko ñu nekk ci lekkool yi ci région bu Diourbel.